assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bii di bisu korite di bisu màgg bu yàlla barkeel di yëkkati kàddu yi ci tur ak ci ndigalul alxalifatil aam li tariqatina al muridiya alseyx muhammadil muntaqa xafidahu llahu alqadiru almuqtadir wa ayadahu wa nasar wa razaqahu wa satar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 di leen ñaanal qabulan xasanan ci mboolem yëngu yi di leen dénkit tey dénk boppam nu gën a góorlu ci li taxoon yàlla bindu nu andi nu fii te mooy jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun kon nan gën a sax ci def ay ndigalam ak moytu ay tereem loolu kat la sëriñ Tuuba bëgg ci nun te mom lañu sant ijmalan wa tafsila ndax moy sababu ak mucc ëlëk te mom lañu bëggal kon nan ci gëna gor gorlu te yar ci njaboot gi di leen ñaaxit ñu gëna doylo sëriñ bi gën ko wolu gëna japp ci lim andil tem doy sëkk ngir jagal sunu adina ak sunu alakhirah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 ndax mooy lépp lum nekk mu rafet lum génn mu ñaaw ba ci xam-xam fa kasratul ilmi bi gayri adabi jalibatun ila al ada wa taabi nan maa sa xam ne àddina dëkkuwaay jaarukaay rek la di tool yu nuy liggéeyee rek kon du kërug fo du kërug noppalu nan teg ci sun kanam waxe sunu borom ji te mooy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 kon jenn jëf du neen fedle na ko fa neen sax wax ne fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara ku def dara lu toll ne la la gën a tuut ci liy tuut ci lu baax dana ko gis ku def lu tolloon ci saan bi itam dana ko gis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 يلنو يلا بول بال إنه تعالى مولاي ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير وهو قريب وسميع وبصير وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير دينتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته